bopp waaw xam nga dafa am benn tamante dëmm bu dee mën nañ ko tuddee noonu boo xam ne dafa am seen diggante ñoom mhm. ku nekk ku diggante maître Diagne ak ki nga xamante ni moom mooy euh, maître Sow mhm. euh, Pape Samba Sow euh, ñoom ñaar ñëpp di ay awoka ñuy jiiñante kenn ku nekk naan yaa bindal Adji Sarr li nga xamante ni moom mooy plainte bi mhm. ba ba ñuy ak dem sax ba ni ñoom ñaar dinañ portante plainte te boo xoolee Euh, féewaloo boobu nga xam ne dafa am nekk seen biir day dëggal rek kaddu bi nga xamante ni observateur yi ba léegi ñu ngi ko doon wax au début maanaam la thèse du du complot mhm. parce que euh, kii ñu njëkk a tudd maître Dior Diagne bi nga xam ne njëkkoon nañ ko tudd di ko jiiñ ne moom moo bind plainte bi mhm. dafa def sortie weddi ko ci après ci yeneen fan yi mu defaat beneen sortie di accuser beneen moroomu avocat am ne dina ko plainte sax parce que le fait que mu def loolu ba pare bind plainte bi ba pare te génnul wax ko moo tax gars di ëlbatiku di yàq deram te loolu mën na mën na attenté ci li nga xam ne moom mooy di annoncé ni dina ko porter plainte ak yu ne mel. Mhm. que tamit répliqué donc mu mel ni kon contre plainte moo ci am. plainte boo xam ne digg en tout cas ñoom ñëpp bind nañ seen njiitu avocat yi muy bâtonnier mhm. pour kenn ku ci nekk jéem setal sa der annoncé nañ ay plainte également au pénal mhm. pour que kenn ku ci nekk jéem setal setal sa der donc li leer ba leer foofu mooy mhm. euh, Adji Sarr bindul plainte bi donc au moins ci ci féewale bi rek loolu loolu moom leer na nañ mhm. parce que ba ko enquêteurs yi ku lire PV bi di gis ne enquêteurs bañ ko laajee dafa ni moom moo ko bindal boppam mhm. donc fee ñëw na buddi wanee ne kon ndekete en réalité du moom moo bindal boppam plainte bi mhm. ñaareel bi tamit loolu day accrédité thèse complot bi nga xam ne wax nañ ko depuis au début parce que man li ma gën a marqué ci dossier booy au fur entre les mains de tout le monde. de tout le monde ku ci laal rek. Euh, moo tax man bu fi leneen génne lu dul noonu dina ma dina ma jaaxal dina ma jaaxal trop. Mhm. ba pare tamit leneen li ñu ci mën a dolli mooy. Mhm. gis nga actuellement. Euh, xam nga jamono yooyu weesu ñi ngi doon wax ni sax les témoins à décharge. dañ leen commencé négliger ku ci mel ni euh, soxna si nga xam moom moom salon de massage bi. institut ak borom këram. xam nga ñooñu mhm. ay témoins à décharge lañ. mooy Euh, dafa am jafe-jafe ci wàllu wér-gu-yaram te jafe-jafe boobu noonu. El Hadj Diouf nee loolu amul ah nee na elle se porte très bien. bon xam nga xam nga parole d'avocat <laughs> <laughs> voilà dafa am waa léegi kon pour démentir loolu na def sortie publique wane ne maa ngi nii ne fang maa ngi nii. taxaw wax ni dara dara dara loolu moom yomb naa wér. léegi nag. loolee ko dal. Mhm. li ko ci mën a génnee mooy mu taxaw carrément ni tuuma yi ma tegoon yëpp dara amu ci. te loolu bés bu ko naree def. Mhm. état bi da koy liquider. donc on doit être très vigilant par